di fàtte abonné ci suñu chaîne bés cloche de notification bi ngir am bép vidéo bo xamni duggal nañ ko kr 24 vidéo yu am solo la ñuy def alhamdulillahi qaa'il fi lmaxkami tanzilihi wa salam ala asraf al-khalq alxalqillah nabina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم وبرسخ المكتوم تاج العارفين عارف بالله قطب الأقطاب السيدي مولاي أحمد التجاب بن محمد وعلى جميع أصحابه والأوليائه والأخطابه ومن اخطف آثارهم إلى يوم الدين إخوة المؤمنين في الله كما قال الله في كتاب العزيز إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هنيئا لكم لهذا الشهر رمضان شهر الذي فرض الله لكل الإنسان آه، كما قال الله في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي جلتي نيني توب في تلفزيون بو مكبي دي كار 24 انفو نيغ لين دي نويو دي لين زيارة دي سانتي الله عيد جلتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم yonent bi nga xam ni xéewal gii nga xam ni yàlla defal nañu ko muy chehru ramadan mubarak yàlla nga ko jaarale ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xeet bu nekk dun nga sàkku ci yàlla mu jox la jullik juróom waaye xeet bu nekk dun nga sàkku ci borom bi subhanahu wa taala mu jox la koor waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ko yàlla jagleel tabaarakallahu am na ñu daan woor waaye koor gi ñu daan koor buñ ci waroon a am cent duñ ko ci am cinquante la ñuy am ndax lu tax mooy yàlla validé lu leen seenu koor mooy dañ ko doon def ngir jaamoo ko yàlla te dañuy faral di wax ni lépp looy def te amoo ci ndigalal yàlla bien vrai que di nga ci am ak fay waaye bu yàlla diglee boo ko defee ci ngay ëpp ak fay kon ñooña dañ doon koor ngir ni nañ ko jaamoo yàlla waaye ñun xeetuk sayyiduna muhammad dañuy koor ni ngir yàlla moo ñu ko sant ndax aaya bi bir na te li mu wax mooy kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum faratal naa ci yéen koor comme ni ma ko fartale ci ñépp kon xéewal yooyu noonu yàlla mi ngi ko defal xeetu naa muhammad waaye ci biir xéewal yi euh, dafa am nuñ koy doxale dafa am lu ñuy comporte woo ci diiraa koor gi da gis ni Sénégal dana yor benn habitude benn habitude boo xam ni bu dee da ngaa jàng tuuti ci wàllu xam-xam wala nga jàng tuuti ci wàllu yàlla walla nga xam tuuti ci téeréem bu tedd bi di alquran wala nga jàng tuuti ci hadisu nabi sallallahu alayhi wa sallam da nga naan yàlla dafa waroon valider koor at parce que lu tax mooy ni bu koor gi jotee da ngay gis ni changement day am ci réew mi ba vrai bien vrai que ni loolu lañu war a doxale boy def ñaawteef bo wër koor ñew war nga ko wañ waye nak yalla bëgg ko ci wër koor kese nga wañ ko da ngay dem ci yeen nit jotay yi ngay gis nit ñi ñuy jël alquran diko lire ñuy jël yeen nit ci téré yi yo xamni ni sunu mag ñi ñoko bind rawati na suñu mbokk tariqatul muridiyya bi diko jang jàng maam borom touba nga gis ñi nit ci nit ñi ñuy dem di doxi mbokk ñi fonk jullit juróom ñii di naafila te bu dul weeru koor loolu du mën a am kon day nekk benn saaru politik boo xam ne dañ ko bëgg a doxal suñu diggante ak suñu boroom te yàlla yàlla kenn du ko jaamoo noonu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ni nit ki alquran dañ ko war a jàng mu nekk farata ci doomu aadama bi alquran duñ ko la jàng mu nek farata ñu laaj suñu yonent suñu soxna si soxna sayyiduna muhammad ñu laaj ko muy aïcha mu ne yonent bi du julli du jul du tëdd guddi lu dul ni julli na fukki rakka ak ñaar ñi ni fukki rakka ak ben ñi ni fukki rakka ak ñett way ikhtilaf la waaye l'essentiel ni li nga xamni moy wér moy yonent bi du tëdd guddi te nafilewul القران بوبا خامني بروم بي سبحانه وتعالى دا فاخني يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الى خليل مني القران دنجو ور ديكو جانغ القران دونو ور ديكو جانغ دونتي توتي لا دونكو ور ديكو جانغ تي دامي فرال تلفوني يا سونو تليفون ييغا code bi dañuy dem ba miin ko benn miin boo xam ni buñ koy tijji duñ ci concentré wu sax mën na ñuy waxtaan te tijji code téléphone bi te duñ ko jaawale lan moo ko waral li ko waral mooy ni chaque jour bu ñu xëyee ñu ngi ci téléphone bi donte ci suñu dund la bokk bokk na ci liy ñoŋal suñu jaamu yàlla waane bokk na ci li nga xam ne mooy tax ñu mën a tranquille bokk na ci li nga xam ne mooy tax ñu mën a nekk nit ba mën a jaamu yàlla ni mu ware waane ni nga jël téléphone bi def ko ba code bi nga koy tijji sans nga jël ko sa concentration def ko ci moom soo ko defoon ci alquran ji bu yàggee danga koy da nga koy man waaye nag alhamdulilah li yàlla wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko weer yëpp mën naa bàyyi malaaka yi ñuy fay weer yëpp mën naa jël malaaka yi jox leen fay yi ñu koy yónnee lii nga xam ni mooy weeru koor bu xasee egsi man borom bi subhanahu wa taala man mako koy fayal sama bop kon yene biñ ci yene di ci jàng alquranul karim wala yene biñ ci yene di ci jàng ay khasa'id khasa'id yo xamne dañ ko tagge sayyiduna muhammad ndax ben mak wax na ni wa matxu nabi sallallahu alayhi wa sallam aadamu min ibadillah nee na di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jaamu yàlla yi gën a waaye boo xoolee maanaa bi lépp da ngay xam ne mi ngi ko tënk ci li yàlla wax ni wa ma ataakum min rusul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu mi ngi ko tënk ci xul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum sunubukum yàlla dafa wax ni lu mu leen indil moom sayyiduna muhammad jàpp leen waaye lu mu leen tere bàyyi leen waaye ne su ngeen bëggee ma bëgg leen man yàlla sama cofeel ci yéen di xëy di gën a yokk bëgg leen sama waa ji muy naa Muhammad waaye bu leen ci du ma yem ci ma bëgg leen man yàlla waaye dama leen di jéggal seeni bàkkaar wa yaxfir lakum zunubukum kon kiy jàng xasaayid boo xam ni mag moo ko bind moo xam Seydil Xaaji Malik la nga xam ne tagg na yonent bi ci ay façon taggin nga moo xam maam boroom tuubaa la moo xam maam Barham la moo xam ici 18 ku mu doon ci mag ñi nga xam ni yàlla cërale nañ ko wala ci taggin yi nga xamni ñu melni ñom ibnu muhayib nga koy japal jappal ni yaangi tagg sayyiduna muhammad te bir tagg bi ngi koy tagg yalla dala ci sop way sop bi la ci yalla sop dala jéggal say way nak rawati na di jang alquranul karim ci wéru koor kon euh buñu waxé ni yalla daf ko won def at moy ni ngir nit ñi gëna mëna delu ci borom bi subhanahu wa taala waye nak baxna ndax damay dégg ci benn góor bu ni wax Cheikh Mouhidine Samba Diallo mu wax ni moteur bi daw rek moteur bi daw rek te du arrêté bu yàggee day kuule da ngay xool ci oto yi da ngay jekk bi benn sofoor ni la man sama moteur dama koo teggi lu tax mu ni dafa def nangam dafa am problème wala daw ba yàgg moteur bi kuule nit dafa yor benn moteur boo xam ne mooy tourné ci moom kon day doon day jar benn instant ñu stopé ko taxaw dund la suñu ruux dund la suñu biir yi waaye la suñu jëmm ji ci lan dund la ko ci fàttaliku borom bi subhanahu wa taala ndax yaakaar naa ni lu nit ki di fàtte fàtte boromam bu weeru koor dikkee sa xel dem ci borom bi subhanahu wa taala waaw loo fàtte fàtte sa borom bu weeru koor gi dikkee sa xel ak sa xol yépp day dellu ci borom bi subhanahu wa taala ndax lu tax imagineel ki nga xam ni xëy na ki nga xam ne dafa xëy 5 heures 40 wala 6 heures du matin yàlla ne ko bul lekk bul naanati bul jege sa soxna bul def benn bànneex boo xam ni day yàq sa koor ba 19 heures et quelque ñaata temps la lépp yow lekkoo naanoo mais defoo lenn loo xam ne mooy yàq sa koor kon sa xel mépp day dellu ci borom bi subhanahu wa taala moo tax yàlla wax ne du ma yónni kenn xataa sayduna muhammad du ma ko yónni mu koy fay man borom bi subhanahu wa taala maa koy fayal sama bopp mais lu ci yéeme mooy ci biir ci biir baat yi nga xam ne doon na ci junj koor te mooy mooy aaya bi ma la waxoon sànq te mooy kutiba alaykum siyaam soo demee ca zahru ramadan alladi unsila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليزوم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دا ngay dégg foofu mu wax leen la wa iza za'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i isa da'an kon foofu war nañ bu yàlla ne yuridu yuridu bikum laawul yusra wala yuridu bikumul usra dama bëgg si yéen ak jàppandal bëgg si yéen ak yommandal sama diggante ak yéen bëgg si yéen ak jàppandal bëgg si yéen ak yommandal ngir ni ngir ni seen tiyaaba mën a bëri mën a yokk mën a fulu promotion bi gën a yaatu waaye boo avancé ba aaya bi jeex ci kanamu aaya bi dafa ne yonent bi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i isa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ la laajee man yàlla buñ la laajee ni la man fu ma nekk ni leen ku leen jege laa mais li ñuy intéressé ak li ñu li ñu liñ ci jànge ñun mooy lu tax aaya boobu toftoo toftaloo ak koor yi kon liñ ciy dégge mooy koor yàlla day jege jaam ñi liñ ciy jànge mooy koor yàlla day jege jaam yi ndax mu ni ko nag ujibu daawata daa isa daan dina nangu ñaanuk ñi wor wala ñaanuk jaam yi rawatina ñu wor waye ci kaw daan yalla ku ku man la neena na bu di da nga ñew man yalla jox ma sa lepp ma defal la tuti waye bo ñewé ngir bokalé ma kenn ma tranquille ci say mbir dem korosé la sama samay loxo tok di la seetaan mu ni ujibu da'wata da'i iza daan ci kaw nak nga ñaan wala nga woo so ma fal yastajibu wala yu'minu bi la'allahum yarshudun dinaa la wuyu waaye amaana wuyu bi ma lay wuyu ci laa lay jubal ci laay sukkandiku man yàlla jubal la te doomu aadama soxlawul lenn ci àddina lu dul ak njub bañ naka ba ci biir booy julli muy juróomi waxtu yi booy julli di nga ñaan njub alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim gis nga chaque jour boo jullee suba yaa ngi ñaan jub yow boo yeewoo bala ngaa teg benn pan yaa ngi ñaan jub waane booy tëdd bala ngaa tëdd ci lal yaa ngi ñaan jub kon laallahum yarshudun amaana ma jubal leen te yàlla ku mu jubal li muy firi mooy mu gindi na la te képp koo xam ne yàlla gindi na la sa wàccuwaay ëllëg yowmal xiyaam moom mooy aljanna kon mbokk yi dañuy faral di wax ni weeru koor bu ñëwee buñ doon lekk doon naan nañ ko bàyyi te dem woori année bi douze mois la ci biir douze mois yooyu onze mois yépp yàlla dafa ne la lekkal naanal joteel rek sa soxna óor bu mu la neex waaye bu jotee rek yàlla nee na arrêté bëccëg gi nga delloo ma ko man yàlla guddi nga jëlaat ko sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum dafa ni wa dawmu zikraani l ayaami xubuuri lahum wa fi l xubuuri lahum ahlun bi sulfaha nee na bu dee yàlla du la wàccee ci àddina nga ni du ma jàppal ni wóoroo de ci zahir ak nit ñi gis bi la gis waaye bis boo duggee bàmmel di nga war foos wa dawmu zikraani l ayaami xubuuri lahum bis boo laloo sa loxo càmmoñ bii wala boo laloo sa loxo ndeyjoor bii ñu takk la ba nga dëgër gas ba mu xóot ki nga gën a bëgg ak ki la gënoon sopp am na ni muy demee mooy jàpp ci buñ lay dugal si biir bàmmeel mu dugal la ci biir nga am espace ak digganteeg bàmmeel bi mu wut ay luñ la gege kal la ba nga ni kekk ñu jël ay lëxët defalal la ko tegal la seng suul la ba nga ni kekk tourné dem ñibbi boobaa boo bëggee woor di nga woor soo bëggul wor di woor kon nag bu ko yàlla santaane ci diira douze mois yi mu tànn ci benn weer ni bëccëg gi rek laa soxla ngeen jox ma ko nan ko jox borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla nangul ñu suñu koor nangul leen yàlla fulal ñu suñuy jëf jéggal ñu suñuy bakkaar taqabal allahu minna wa minkum asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu leen di fàtte abonné ci suñu chaîne bés cloche de notification bi ngir am bépp vidéo boo xam ni dugal nañ ko. KR24 vidéo yu am solo la ñuy def.